يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من وراء ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد شديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت أصلها ثابت وفرعها في السماء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 alam tara ila alladina baddalu nicmata allahi kufran wa axalluu qawmahum daara albawaar jahannama yaslawnaha wa bisa alqaraar wa jacaluu lillahi andaadan liyudilluu can sabilih qul tamattacuu fa inna masirakum ila annar قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار الأبصار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة fajal af'ilatan min annaasi tahwi ilayhim warzuqhum min athamarati laallahum yashkurun rabbana innaka taalamu ma nuxfi wa ma nuclin wa ma yaxfa ala allah min cheyin fi lardi wala fi lsama alhamdulillahi alladi wahaba li ala alkibari ismaila wa isxaqa inna rabbi la samiu duca rabbi ijcalni muqima alsalati wa min durriyati rabbana wa taqabbal duca rabbana agfir li wa liwalidayya wa lilmuminina yawma يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار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 ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون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 رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حماء مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا, تك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حماء مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى, إلى يوم الدين <coughs> wa inna alayka allaanata ila yawmi ddin qaala rabbi fa anzirni ila yawmi yub'athuun qaala fa innaka min almunzarina ila yawmi alwaqti alma'luum qaala rabbi bimaa aghwaytani la uzayyinanna lahum fi alardi wa la ughwiyannahum ajma'iin illa ibaadaka minhum almukhlasiin qaala haadha siraatun alayya mustaqiim إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة, لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم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 قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فاسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا, ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون فاتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا منهم أزواجا إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين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 bismillahi arrahmani arrahim أتي أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنظر أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو قسيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع منها تاكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والحيل والبحار والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله الحج السبيل منها جائر ولو شاء لهديكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنقيل والعناب من كل الثمرات inna fi dalika la ayatin li qawmin yatafakkarun wa saxara lakum allayla wannahaara walchamsa walqamara wannujuma musaqaratin bi amrih inna fi dalika la ayatin li qawmin yaqiluun wa ma daraa lakum fi lardi inna fi dalika la ayatin li qawmin yadakkaruun wa ma daraa lakum fi lardi muxtalifan alwaanuhu inna fi dalika la ayatin li qawmin yadakkaruun wa huwa alladi saxara lakum albahra litaakuluu minhu laxman tariya wa tastaxrijuu minhu xilyatan talbasuunaha wa tara alfulka fiihi mawaaqir wa litabtaxuu min fadlihi wa lacallakum tashkuruun وألقي في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين تدعون من دون الله من دونه والذين تدعون من دون الله لا يخلقون وألقي في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون ما تعلنون والذين تدعون من دونه لا يخلقون laa yaxluquuna shay'an wa hum yuxlaquuna amwaatun xayru axyaa'in wa maa yascuruuna ayyaana yubcasuun ilaahukum ilaahun waaxid falladiina laa yuuminuuna bil-aaxirati quluubuhum munkiratun wa hum mustakbiruun laa jarama anna Allaaha yaclamu maa yusirruuna wa maa yuclinuun innahu laa yuxibbu al-mustakbiriin wa idaa qiila lahum maadaa anzala rabbukum qaaluu asaatiiru al-awwaliin liyaxmiluu awzaarahum kaamilatan كاملة يوم القيامة ومن أوضار الذين يدلونهم بغير علم لا ساء ما يسرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله أتى الله بنيانهم من القواعد فقر عليهم السقف من فوقهم من فوقهم وأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يغضيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي يوم الوسوء على الكافرين الذين تتوفيهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا الظلم ما كنا نعمل من سوء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 وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربهم قالوا خيرا للذين قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفيهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم عنهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه عليهم الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هديهم فإن الله لا يهدي من يدل ما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بل وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 لعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله ظلاله عن اليمين عن اليمين والسماء سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة dabbati wal malaika wal malaikatu wahum la yastakbiruun yaxaafuuna rabbahum min fawqihim wa yafaluuna maa yumaruun allahu akbar allah akbar allahu akbar wa qaala allahu laa tattaxiduu ilaahayni isnayni innamaa huwa ilaahu waaxidun fa iyyaaya farhabuun allahu akbar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 allahu akbar allahu akbar assalaamu aleykum wa rahmatullah assalaamu aleykum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 وقال الله لا تتخذوا إلهي اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واسبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم, بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يستهون وإذا بسر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بسر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون الذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله مثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يواخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يواخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام العامل عبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرس ودم لبن خالصا صائغا للشاربين ومن الثمرات النقيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآيات لآيات لقوم يعقلون وأوحي ربك إلى النخل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرثون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي الزبل فاسلكي الزبل فاسلكي الزبل ربك الذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفيكم ومنكم من يرد إلى أرسل الأمور لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير الله أكبر الله أكبر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 فما الذي فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم وهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لكم رزقا من السماوات والأرض شيئا فلا يستطيعون فلا تدربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا لنا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بغير هل يستويه هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون alam yaraw ila tayri musaqaratin fi jawi samai ma yumsikuhunna illa allah inna fi dalika la ayatin li qawmin yuminun wallahu jaala lakum min buyutikum sakanan wa jaala lakum min juludi lanami buyutan tastaqifunaha yawma zanikum yawma zanikum wa yawma iqamatikum wa min aswafiha wa awbariha wa as'ariha wa ash'ariha athathan wa mataan ila hin wallahu jaala lakum mima khalaqa dilala wa jaala lakum min aljibali aknana wa jaala lakum sarabila taqikum alharra wa sarabila taqikum ba'sukum kadhalika yutimmu nicmatahu alaykum la'allakum tuslimun يعملون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم كافرون ويوم نبعث من كل أمة صهيدا ثم لا يوسن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون وإذا رأى الذين أسرقوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنهم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ الظلم وضل عنهم ما كانوا يفترون alladina kafaru wa saddu an sabilillahi sidnahum aladabu fawqa aladabi ma kanu yufsidun wa yawma nab'asu fi kulli ummatin shahidan alayhim min anfusihim wa ji'na bika shahida ala haulai wa nazzalna alayka kitaba tibyanan likulli shay'in wa hudan wa rahma wa busra lilmuslimin allahu akbar allahu akbar sami allahu liman hamida ربنا ولك الحمد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 asalaamaaleykum wa rahmatulah. asalaamaaleykum. laa ilaaha illallaah. Allahu akbar. Allahu akbar.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 allahu akbar allahu akbar allahu akbar assalaamu aleykum wa rahmatullah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 allahu akbar allahu akbar asalaamaaleykum wa rahmatullah. asalaamaaleykum. muy Tawfekh jugee.